bon Taboy boy, na benn boo xamante ni quand même ça m'a marqué hmm. du ma ko faté nak, duma ko faté, duma ko faté, je pense que je vais jamais oublier ça euh, temps bobu ñu ngi nekkoon euh, si si si si baraag bi lañ dëkkoon donc il y avait ma petite sœur et mon petit frère amuñu won télé donc euh, il y avait mon grand frère si bi la ne mais euh, il était handicapé il était aveugle donc ñu ngi avons eu courant ci nek bi sama ñaari ñu ngi teud di nelaw man ngi ngi nelaw sama si si de bi à côté dem di télé donc sama papa waccagul won. il faisait 23 euh, 23 heures hein. Légui nous euh, ñu Sondel. bi euh, lakk néeg bi néeg bi di lak léegi nag man comme maa ngi xale xaw ma lu ma war a def léegi sama grand frère moom yëkkati ñaari bébé yi quoi mais c' était un aveugle dafa dafa kii mais je sais pas comment il a deviné que néeg bi mi ngi donc mi ngi gàddu ñaari xale yi téye ma je sais pas comment il a fait c' était affaire boobu daal mbiru yàlla la mais yóbbu ba sama yaay fu mu nekk mu nekk ñëwal néeg bi mi ngi tàkk donc euh, loolu ça m'a quand même marqué parce que après moom si si loxo bi si ginnaaw dafa dafa dafa lakkoon mais joyeux, deful dara et tout donc c'était quelqu'un de d'extraordinaire pour moi et après yagoul, yagoul, nga di yàgg après lui il est décédé donc lolo, ça m'a marqué daf ma marqué parce que gumba la en fait et que nan la def ba ba ba sauver ay rakkam quoi donc lolo, du ma ko faté, du ma ko faté parce que je me souviens que c'était moment bu triste la woon bu metti la mais sant yàlla loolu quand même je vais jamais oublier ça. man Sonia Diop moo war a ñëw wax fii Tamboyam borom criminel love Sonia ñëwal nga wax sa Tamboy.